baax man la Adja Rabi Sarr di ñaanal ñi nga xamante ne am nañ ay gaañu gaañu ci événement yi nga xamante ne moo passé ma leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati delloo leen seen activité di wax ne de su ma xamoon ne lii de fii lay mujjee wala lii yëpp am dina si am dinaa kon dinaa boole lu ma neex ak lu ma naqar yëpp toog toog si.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 problème bi sénégalais yëg ko wala keneen ak keneen di ko yëg ba muy am ampleur bi nga xamante ne am na ko tey moo ko ne capitaine